barhaamu baa'un waraa'un alifun faydu tiijaan ñu ñuy naan. dafa bind ci juróom-ñaari fan te su ko neexoon dafa naan àddina nekk rek mu nekk rek day waaye dafay jàngal doomu aadama bi nga xam ne. ne na ko lépp lu ma bind ci kaw àddina yow yaa tax ma bind ko rek day bàyyi mu ne kërimu su fekkee ne dafay defal teraanga dafay taaj taale taabalam dajale ci la nga xam ne moo ci war a daje yëpp ki muy évité door a ñëw day waaye lépp ngay àddina yàlla def na tëjali yu gën a màgg ndax li nga xam ne moo nekk ci àddina bi ak mi naa kon yàlla yëpp mu moo gën a kowe àddina ak suuf ak doomu aadama rek day waaye loola daf ci géndee ko def naa nekk rek mu daal di nekk ca nekkam ga rek day waye nak bi nga xamé doom aadama motax mu bind adina mu motax mu mu bind su jamono ji mom da daf ko jangal yiix motax yiix yiixantu ci yalla la joggé waye yakamti mom ci setan la joggé bàyyi mu ne kep ko xamné sa mbir da koy tawax ci yakamti rek day li gëna bari moy dafay gëna a rek day waye so defee ci ndànk motax adina yalla bind na ko ci juroom ñaar juroom benn fan su ko neexoon dana nek rek mu nek waye nak lepp lo xamné moy aada lu muy bind rek fay nek lu tuti di mag di mag di mag ni ko dara ci gantax gi ak jur gi ak nit ñee sa dom ji nga xamne ne yow ya ko jur mu yar ko sa mag bi mi mag yow do ko gis rek waye bët bu sere dana soppe ko ba ngay gisee mu xey rek do ponkal mo xamne ne na ni yow rek lolu mom hikmatu yalla la boo xam ne moo koy ay mo koy jangal aw nitam rek de ba lolu amé mu bind adina bi ci juroom benn fan ay fan amut booba fan amut bis amut waye nak ci natt rek mooy moy moy moy lam njëkk a jënd lam njëkk a defar ak la ca topp ak la ca def toftale booba ba léegi yaaram yi sax suñuy compte bis yi noonu la ñuy def bis bu njëkk bisam ñaareel bisam ñetteel bisam ñeenteel noonu lañ tuddee bisi bisi bisi juróom-ñaari bisab dibeer mooy bisab dimanche ci la bind àddina bi nga xam ne bi nga xam ne ci la suuf si ak garab yi ak asamaan si rek daal di sanc moo tax muy bis boo xam tànn moom lañ taamu ba léegi muy bisab sanc rek de toftaleem ñaareel ba bisab ñaareel ba moom ci la defar jant bi ak muy muy altine ci defar jant bi ak weer wi dem fa faneen fekk ñi ngi dox motax muy bis buñ taamu pour tukki rek day bi si ñetteel ba ci defar jur gi ci jur gi ak yentanti ak ndunal yi di tour sen deet moom itam bi si talaata muy bis buñ taamu pour tour rek bi si ba mu dal di defar géej yu neex yi di daganal sen naan motax tax itam muy bis bo xam mom lañ taamu pour naanu garab khamis mu defar ñaari kër mag yàgg dal di wat ci magay bi ne ñaari kër yi ca mujj ak jamono dana xaajale ñi nga xam ne gërëm ne leen yàlla ñu ci yàlla booy defee leen ci kër ga nga xay moom lañ nga xam ne ñooy ca safaan ba yàlla nañu ci yàlla musal muy kër safara moom itam moo tax muy bis boo xam ne bisam ñaan la rek day ñaan kii mu ci al pour bokk ci ñi nga xam ne yàlla gërëm ne leen waaye ñaan itam pour mucc ci nga xam ne yàlla mel na leen rek day ba pare nag bisu ajjuma mooy juróom juróom juróom bi mu daal di defar ci aadama mi nga xam ne moom la moo nar doon xalifaam fekk nag dafa yàlla dafa gaaral ne inni jaa'ilun fil ardi xalifatan damaa nar a defar am ab xalifa boo xam ne dafay nekk suma kuutal ci kaw suuf rek day malaaka yi ne daal di diingat ni etajaru fiha man yufsidu fiha wa yufsiku dimaa wa nahnu nusabbihu bi hamdika malaaka ñoom seen jikko mooy laa yaasuuna allah ma amarahum wa yafaluuna maa yumaruuna malaaka du lekk du naan du nelaw malaaka dafay sabal boromam rek moo tax nag ba yàlla waxee ne damaa nar a defar xalifa ñoom nag ñu daal di diingat ca fekk nag yàlla dafa gaañi gaaral li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy leer gi nga xam ne moom la moom la mooy mooy mooy tëjëli ñaareel ba tëjëli bu njëkk ba yàlla def ko def waaye kenn gisu ko mooy nekkam ba ak xamam ba mu daal di jël ca leeram nga nag daal di def ko loolu nga xam ne moom lañ defee ci moom lañ defaree àddina rek fekk yàlla nag dafa bëgg a wéetal ci kaw suuf mu daal di dara nekku fi lu may jëmam ji mu daal di fàq ci boppam def ko muy xaqiqatu muhammadiya xaqiqatu muhammadiya booba tuddee nañ ko hayula tuddee nañ ko kër malakum karubiya tuddee nañ ko xel mu sel mi xel mu njëkk mi xelam ñaareel mi tuddee nañ ko nu nekk waaye mu xaqiqo ne niñ ko tuddee mu ne mooy mooy mooy xaqiqatu muhammadiya rek day bi nga xam ne ci la yàlla defaral lépp lu mu defar moo nga xamee ne loolu def na ko nag fekk nag aadama ak aadama ak xawa ca lañ leen defaree ndax yàlla bi mu bindee àddina ba ci juróom bi ci juróom benn juróomi fan ba ci la defar aadama rek daal ca ngoon sa mu defa jabaram ji nga xëy moom mooy xawaa rek daal di bind ko moo tax ba nga xamee ne bind na ko malaaka yi daal di aadama daal di gis ko rek ñu daal di gis ko rek daal di jóg malaaka yi daal di xaaju ko ne ko nooy demee ci kawam te te te daganu la mu ne nu may def ba mu dagan ma ñu ne ko mu ne ñu ne ko da ngay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yekkiwal ko ni ñuy jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ñeenti yoon ñu ne juróom-ñaari yoon su fekkee adama mi nga xam ne mbooleem mbindaakoon yi ci moom lañ moom lañ jógee matière première bañ koy defaree mooy suuf si nga xam ne ma nga jógee ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ba mu bindee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaqiqatu nekk na fa nekk di jaamu yaadama ay junney junney at juróomi junney at yoo xam ne dafa nekk booba at amut waaye ci nattale rek ndax booba asamaan amut suuf amut kaw amut suuf dara amut waaye ba nga xamee nekk na ko mu dem di jaamu boromam di di benn borom ken xamul num daan jaamu boromam rek bam nexé yalla pour mu bind inaakoon yoy mu defa tejeli lu melni setu setu so soo mom loy gis yow la te du yow so yengato mu yengato so re mu re lo def mu def ko waye ma nga fa ta nek fa rek day non la yàlla wane yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanam bi muy dayob tar dayob mat su fekkone ne yàlla melo kan melo kan wolé am rek day mom mom gisé nit yalla yi sen yalla defalé teranga dañuy am kersa ci sen bop kersa goga bam ko amé nit su amé kersa li gëna bari moy dafa ñak ñak ko mo ñëk jóge ne ci mo ñëk a jóge ne ci yonent yàlla mahamad sa sa moom itam muy muy geej geej goga fo fek geej ma ngay pal di yëngatu lu ko waral weggu wa nga xamné ne yonent yàlla mahamad sallallahu alayhi wasallam mo doon ci mo mo ci la mo la nekkon moo tax foo fekk géej mi ngi tit tit bu ga mo jur ngelaw yëngatu bobu mu yëngatu mo jur ngelaw yëngatu bobu mu yëngatu ba mu defee ci la laamee purit purit booba ngelaw daal di ëf ko ba wow ba mu ko woowee mu daal di soppeeku suuf mu daal di mu di ko yëngal ba nga xam ne xeer yi ci nekk di nekk nañ di fenkalante ay xeer ñaari xeer yu dëgër soo leen di fenkalante da nga gis ay ñeer mentali safara di ci génn bañ fenkalante e nag ci la ñaa ci la ci la saxat génnee saxat soosa ci la yàlla bindee asamaan ba ba su purit moom suuf soosa nga xam ne ba woowee moom lañ def suuf moom lañ ci defee asamaan gannaaw gi nag bi mu soobee yàlla mu def asamaani juróom-ñaar def suufi juróom-ñaar daal di bind àddina bi ci juróom-benni fan di jàngal doomu aadama ah, malaaka yi nag ne ko yee yow yàlla suñ borom ñun suñ jikko mooy jikko malaaka du lekk du naan du nelaw malaaka li muy def dafay sàbbaal borom moom la alquran di netti na laa yaasuuna allah ma amarahum wa yafaluuna maa yumaruna duñ mënuñoo moy malaaka ni nga xamee ne nit noonu la ko naaw téye moom malaaka dem noonu la ko moy yàlla téye rek day moo tax ñu nag yàlla naka ngay bindee ay mbindaakoon ñun suñ jikko mooy topp la rek ak sa baat la ak sa baat la duñ def duñ ma yàlla duñ def dara yàlla ne man xam naa loo xam ne xamu leen ko ba ko yëwi sàppee nag mu teewal aadama fekk nag suuf soo soosa nga xam ne juróom benn fan yooyu ba mu defalee aadama booba def ne ko askun anta wa zawjuka aljannata ñoom aljanna lañ dëkkoon rek waaye bi yàlla gaaralee ñooñ kaw ak ñoom suuf ni leen indi jaayilun fil ardi xalifatan di ñëpp ñu diingat waaye mu gaaral ko Adama ne ko su fekkee ne sa ngërëma anen ki man danaa nangu rek day mu ne ko kon nag mu ne ko kon nag yow mi nangu examen danaa la tuumaal de mu ne ko moom caag su fekkee ne tuumaal nga ma tuumaal joo xam ne sa ngërëma anen ki rek day moo tax Adama mooy gim mooy yàlla li alquran dina dafa mooy yàlla mooy ndax dafa dañ ne ko garab lu neex waaye lekk waaye garab gi bu ko lekk rek day yàlla moo ko yëkkiiwal tuub ga nga xaye moom la tuubee woon moo tax tuub ga nga xaye Adama tuubee woon na ko yàlla nangu ko Eh, te te iblis moom nangu luñ ko bosam rek day ndax kee dafa am ndigal moo tax lépp loo gis ndigal daf ci am daf ci am daf ci am solo rek day adama dafa am dafa dafa dafa mooy waaye dafa tuub ci ndigal baat yem wax baat yi nga xam ne moom la iblis gën a wax rek moom moo gën a moo gën a moo moo a waaye bee moo moo gën a rafet waaye keene moom def ko wax ci ndigal te ki waxu ko ci ndigal rek day ba yàlla bindee aadama nag ba mu ko bindee daal di wal ci moom ruuxu ruuxu gi di dox ba mu ñëwee ba ci tànk yi mu yënga tànk yi ba mu jàllee ba ca dind ba mu daal di ca ca ca kiiw mu daal di tisooli ba mu tisoolee mala ne alhamdulilah malaaka yi daal di ndokkeel ko moo tax aadama moo njëkk a wax alhamdulilah mu nga xamee ne jibril moom yonent jibril moo njëkk a wax subhanallah allahu akbar yonent yàlla nu waxoon moo ko njëkk a wax yonent yàlla ibrahima moo wax laa ilaha illallah laa yonent yàlla nu waxoon moo njëkk a wax laa ilaha allahu akbar yonent yàlla ibrahima moo ko njëkk a wax rek baat sanga booy njëkk a wooye mujj nag moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne laa xawla wala quwata illa billahi aliyu azim moo tax kàddu yooyu moom ñu ñoom ñett ñoom ñun ñoo ko njëkk a wax rek ba yàlla bindee aadama nag ba def ci moom ruuxu ba nga xamee jóg na ca saa su mujj sa ñu defar awaa mi nga xam ne moom mooy jabarab mu daal di gis ko rek daal di jóg tàggoo sa daal di yëkkati loxoom bëgg ko teg malaaka yi xaaju ko ne ko bul ne ko ne ko noo demee ci koo xam ne may du sa jabar mu ne nu may def ñu ne ko da ngay mu ne mu ne ko da ngay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yëkkiwal ko neka la ñuy jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di julli ci moom juroom mooy can su fekkee aadama bi nga xam ne moo bind moo leen bindee fi mooy seen baay can gañ ko takkee diggante mag awa moom ña nga mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon day moom itam moo leen mag waaye jibril ba mu àndee ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu rajaan bañ ba ca sidratul munta jibril ne ko sang bi fii laa mën a yem mu ne ko jibril kenn du ànd ak sa xarit ci tukki mu tuusee nii nga di ko bàyyi gannaaw mu ne ko juróom ñaar fukki péeñ ci suma kanam yoo xam ne ko jàllee ni cunkoor di la kee ci safara noonu laa la kee day mu ne noonu moom moom yonent bi nag doomu aadama gi xaw a ñëw mu daal di wéet bëgg wéetiliku mu ne ko yow jibril sax ñaata at nga am mu ne ko sang bi man mag laa de mu ne ko ñaar waxal ma ñaata at nga am mu ne xaw ma ñaata at laa am waaye at mu jot juróom-ñaar fukki junne at bu nekk juróom-ñaar fukki junne at yu nekk dana am biddiw boo xam ne dafay fàdde dafay fàqee séerétu munta daal di dem eh, dem dem dem ma la ulaala mu ko fekke naa ko juróom ñaar fukki junne yoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam ne ko biddiw booba man may mom kon ñu xamné ne bi sallallahu alayhi wasallam sallam ndeke moom ak jibril tam kon moom ak lépp lo xamné motax ñu di ko wax ne yow yaay bàyyi bàyyi bàyyi yaay bàyyi bàyyi yaay bàyyi doom yi itam yaay yaay ciosan lépp luñ def lépp lu yàlla bind ci kaw suuf matière première ba nga xamné moy mom mom lañ ci lañ ko jëlé moy yoonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam allahumma salli ala sayidina muhammadin al fatih lima